bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi wa kafa wasalaatu wasalaamu ala almustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man istafa badaxtu bi bismillahi amri muhamdila wa badu bi bismillahi yaxmadu mawila badaxtu taaliban min alwahaabi awnan wa tawfiqan ila sawaabi maa ngi tàmbali samay kàddu ci turu suñu borom di wax bisimillahi rahmaani rahim di sant sun borom di julli di sëlmal ci ki mu tànn ak i ñoñam ak i sahabaam ginnaaw loolu maa ngi nuyu sëriñ bi nuyoo bu tedd nuyoo bu sell nuyoo boo xam ni taxiyatan masfuufa taxdu biha al ikraamu wal ijlaal waaye maa ngi nuyu mbooleem mbokk yi fi teew yëpp nuyoob islaam xam naa di sof rek te dana xaw a jafe ci man lool bu boroom xam-xam mel ne sëriñ Mouhamadou Mbacke waxee ba noppi mu ñëw war a wax ak it war a wax ci kanamu sunu kilifa dara metti waaye nag jëfe ndigal waxtaan wi nag xam naa lu gàtt lay doon danañ wax tuuti ci salaatu ala nabi ay njëriñam waaye ñëw ci sëñ Touba ak salaatu ala bi ak li mu jëf ci salaatu ala nabi nga xam ne jàpp naa ne gis ku jëf lu tol noonu dana jafe julli ci yonent bi nag sëñ Tuubaa nee na fa hiya ajallu ma tamassakta bihi baada adaa'il fardi faltantabi nee na julli ci yonent bi mooy li gën a màgg li ngay jàpp ginnaaw boo defee farata yi daan ne faltanta bi faltanta bi ne mooy kon nanga góor góor lu bay julli ci yonent bi julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mooy li nga xam ne bu ko nit ki def mi ngi koy defandoog suñu borom yeneen jaamu yàlla yi li ñuy baax baax li ko yàlla digle yàlla waxul fenn maa ngi koy defandoog yéen waaye julli ci yonante bi moom daa njëkk wax ne man yàlla ak samay malaaka ñoo ngi julli ci yonante bi soog na yéen yi nga xam ne gëm ngeen yàlla julli julli leen ci moom te dafa indi yusalluuna fixlul mudaarix ad dallatu ala dawaami wal istimraar nga xam ne waxtu wu ne saa su ne continuellement yàlla ak ay malaakaam ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te julli yàlla ci yonent bi mooy sanaahu fil malaa'il a'la kon julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu wax nañ ne genn julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mook ñeenti téeméeri ci yoonu yàlla ñooy am jihaad bu ne mooy tolloog ñeenti téeméeri aj te aj guñ nangu nag yoolam mooy al ajjana kon si julli ci yent bi nu mu war a toll genn julli ci yent bi ñeenti téeméeri eh, jihaad ci yoon yàlla jihaad ju ne mooy tolloog ñeenti téeméeri aj kon julli ci bi sallallahu alayhi wa ngi noonu yonent bi nee na awla naasi bi yowmal qiyaamati aksaruhum alayya salaatan yowmal qiyaam ki gën a yey ci man mooy ki ëpp lu mu doon julli ci bi ki mu doon ku la ëpp lu mu julli ci yonent bi bu yowmal qiyaam mu gën laa yey ci yonent bi aqrabukum minni majlisan yowma alqiyamati aksarukum alayya salatan yowma alqiyama ki may gën a jege ci jataay mooy ko ëppoon la muy julli ci man gis nga nit ki saa yu jullee ci yonent bi benn yoon julli googu day génne ci gémmiñam wër jéeri ji wër géej gi ba àgg fa sunu borom te fu romb nag danaan man maay julli diw doomi diw lu mu romb loola julli ci moom bu àggee ci sunu borom nag sunu borom bind ca julli googu am picc picc mu am juróom-ñaar fukki junniy laaf laaf bu ne am juróom-ñaar fukki dunq dunq bu ne am juróom-ñaar fukki kanam kanam gu ne am juróom gémmiñ gémmiñ gu ne am juróom-ñaar fukki làmmiñ làmmiñ wu ci ne mu ci sàbbaal juróom-ñaar fukki junniy sàbbaal yu bokkul tiyaaba joojee ki julli ci yonent bi moo ko moom sallallahu ala muhammad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 nee na ci xuratul xayn soo ko waxee benn yoon ubbil nga sa bopp juróom-ñaar fukki bunt yiw tëjal sa bopp juróom-ñaar fukki bunt ay yàlla dana la bëgg jurit ñëpp bëgg la ab naafeq rek moo lay bañ sallallahu ala muhammad mu ngi ci xuratul xayn kon julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa mi ngi noonu gis nga julli ci yonante bi mooy jëf joo xam ne du dog ba yawmal qiyaam am na jëf yoo xam ne ni mën na fay continuer waaye mën naa dog waaye julli ci yonante bi bu yonent bi sallallahu alayhi wa nee na saa yu nit jullee ci yonent bi julli googu day génn ci gémmiñam dem ba suñ boroom bu àggee ci suñ boroom ne man maay julli doomi diw ak doomi diw suñ boroom digal julli googu ne ko demal ci bàmmeelu diw nga toog fa di ko fa xaar di ko jégalul ba am xiyaam ah, loolu xaddis bu wér la kon julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu xam nga sax fi mu toll birrul waalidayni dafa nekk ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kuy julli ci yonent bi yaa ngi def njekk sa waajur ndax saa yow julli ci yonent bi sëñ Muhammad wax na ko léegi yàlla dafa am malaaka mum teg ci bàmmeelam ci raw saa yu nit jullee ci moom mu ne ko diw doomi diw ak diw julli na ci man kon yow mii julli ci yonent bi sa turu baay ci yow ñu ngi koy tudd fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yaa ngi liggéey sa sa waajur léegi nag ñu ñëw ci diggante Sëriñ Tubaa ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa nee na matuka yaa xayrul baraaya mulki waaye wasalaati alayka milki bee mulku la bii milki sëñ Tuubaa nee na tàgg yonante bi sallallahu ma mooy sama ruwaayam ruwaayam man sëñ Tuubaa waaye julli ci yow yonante bi nag mooy sama patron kon julli ci yonante bi alalu sëñ Tuubaa la matuka yaa xayral baraaya mulki wasalaati alayka milki moo tax sëñ Tuubaa def ci loo xam ne jàpp naa ne ñu ko def bariwul sëñ bi ci njëkk a def ci mbindam mooy wane njariñ yi salaatu ala bi am def na ko indi na ko ci Majmahun Nuurini indi na ko ci Masaalikul naan indi na ko feneen am na fu muy wax sax naan wa man araada an yufaariqa muyuba nafsihi fa yulaasima salaatu ala bi képp ko bëgg a tàqali ko sa ay bakkan bii na nga sax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Majmuhun Nuurayn Sëñ Tuubaa nett na fa loo xam ne nii alxasan al basri yi moo ko dundoon dafa am jigéen ju faatu yaayam gént gis ko ñu njoñ ko ba noppi jël godoron bu tàng di ko sotti nekk ci am mbugal ñu teg ci ay fan yu néew alxasan basri gént gis ko mu nekk biir ajjana nekk ci njowaanu ajjana ya alxasanul basri yi ne ko waaw lan mooy sa mbir yow bu yàggul ñu ngi la gis ci xaal bee tey ma gis la ci xaal bi lu a lii mu ne ko benn waay moo romb armeel yi ñu nekkoon ñun néew yi fa tëddoon mat mat nañ juróom benn fukki junni néew ak juróomi téeméer ñun ñëpp ci mbugal lañ nekkoon waaye kenn nit moo fa romb mu julli ci yant bi jox ñu ko bañ ko seddee ci laa amee lii loola ma ngi ci maj ma xunóoree ni nga ñëw ci faw sul mu tii sëñ bi indi na fi ñeent fukki njariñ yoo xam ne lépp ci salaatu ala nabi la bokk téere yi yiñ fi bindoon yi ko jiitu woon yëpp di tagg di julli ci yonent bi sëñ bi leeral yooyu kañ téere yooyu nga dégg ci masaalik muy tudd euh, nafu tiib di di tudd ak nub sax di tudd dala irul xayraat kon lim fi fekkoon muy julli ci yonent bi da ko valoriser ba noppi nag soog a indi nag yëfi boppam indi ay salaat yu bees tàq yoo xam ne moom moo ko dajje ci baget la ko ab kaara salaatin maa salaamin wa kafani al xula man ndexe naa ñeel ko moom yonent bi sallama ab kaara salaatin mooy ay jànqi tagg ay ay jànqi julli yoo xam ni kenn mësu koo julli ci moom xoolal muqaddamatul xidma ak it sax bala maa ñëw ci loolu xam ngeen yoonu géej gi ni mu am ni mu amee solo ci dundu sëñ tubaa te yoonu géej gi moo indi màggalu tubaa yoonu géej gi salaatu xalni bi moo ko waral julli ci yonent bi moo waral yoon moo waral yoonu géej gi sëñ Basiiru sama turandoo radiyallahu taala anhu nee na ci minunul baaxil xadim laxallahu dane ndax amaana tukki bi muy tukki bi sëñ bi doon wax keroog bi mu mottalee xasiid ak muqaddamatul xidma daan ne wax xaala lii bi fammihi annahu wala innahu huwa sababul xurbati min ijaabatihi lahu nicmatun fi tayyi nicmatin nee na sëñ Tuubaa moo ma wax ci gémmiñam ne mu xaddamatul xidma moo waral yoonu géej gi moo tax bi mu koy wayaat ci géej gi mu indi ci loolu ci kubra wa min asbaabi taxarrubi fi lbahri barakaatu hadihi almuqaddama ndax xidma la wayaat euh, ci géej gi ci kubra waaye gis nga yoonu géej gi lépp julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa boo demee ci sa sakku alxatuuf nee na bi mu fanaanee jéewal lam fa fanaanee mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sëñ Touba wax na ne néeg bu xat bu bon bu naqari boobu ñu ko dugaloon dem naa ko dakaar ba visité ko néeg bu doy la bu yéeme la nee na keroog bañ ko dugalee ci néeg boobu ba mu jullee bàqara ñaar rakka bàqara ak Ali Imran nee na guddi gi yëpp maa ngi ko dundalee julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam yoonu géej gi yëpp julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa moom la moo tax ci ndaar gii sëñ Tuubaa nee na defar naa fa ñaari muqaddama yoo xam ne ci julli ci yant bi la bu ci ne faw xana dala ilul xayraat te kat dafa xaaj ak dundam salaatu sitta bi matti sitta taatihi batta maxati saayi juróom benn weer yi julli juróom benn weer yi tagg yonante bi sallallahu alayhi wa sallama waaye yemul foofu de sëñ la muy taggee yonante bi da caa dugalaat julli ci yonante bi li yem ti daahun bis salaati tagg gi may tagg yonte bi dama koy mixé ak julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wa hamdu rabbi wa sukri imtasaja kon dunu sëñ Tuubaa lépp julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama gis nga muxaddamatul xidma ni ko sëñ bi defaree moo yéeme sëñ bi indi na ci juróom-ñaati juróom-ñaati téeméeri tur ak ñeent fukk 740 non di prophète moo tax ba mu ko wayaat ci euh, Kubra ba mu indee turu yaasin bi mu ne yow suñu borom yaa ma may ci turu yonante bi ma def ci loo xam ne kenn jiituwuma ci 740 non non bu ci ne nga julli ci ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallama mm, te tur wi aw tagg lay doon ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallama ba noppi ñaan ci sunu borom yaakaar naa loolu ñu ko def bariwul muxaddamatul xidma 812 salaatu xale ne bi mi ngi ci Kubra 700 nangam salaatu moom itam mi ci yemul foofu Sëñ Tuubaa ngay gis mu am diwaanu salawaat ñaar dañ koo xaaj ñaari xaaj benn xaaj bi rek daanaka lim salawaat yim wesar moo ci ne tuuti moo ci nekk ci ay way mat na 251 paas ci sunu kayit yu mag yi nga soog a indi nag diwaanu xalwaat bi nga xam ne ay way la boobu moom mu ëpp loolu yëpp sëñ Tuubaa def ko ci salaatu ala nabi mbooleem damay faral di wax ne sëñ Tuubaa gis naa ne mooy ki ëpp lim bind ci salaatu ala nabi wax naa xidma wax naa kubra wax naa fathul xafaar duru samin kansul muhtadin ñëwaguma nag ci ay jaalibatu mafatihul bichreek taysirul xasir ak bidaayatul nga xam ne diiwaan waaw fi salaati ala mahil awsaar moom sëñ Tuubaa mi ngi ko wayee Tuubaa gii ci atum 1212 ma nga naan ci biir yàlla yàlla na nga julli ci ki nga xam ne julli ci moom daa bokk ci yi gën a màgg yiy far bàkkaar salaatu gu téere bu doy waar la muxadamatu suxra ak nasriya muxadamatu suxra ak nasmiya gisaat naa beneen muxadamatu xidma boo xam ni sëñ Tuubaa salaatu ala ni bu ci ne yàllaahu la koy daanalee kon xam ngeen lim bind ci téere ci wàllu salaatu xam ne bi bari na waaye dundam gépp nag sëñ Basiir wax na ko sëñ Mouhamadou Mbacke wax ne ko léegi dundam gépp julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa moom la woon waaye beneen aspect bu nit ñi bàyyiwul xel seex seex mooy defar ak salaatu xam ne bi sëñ Tuubaa mooy ki ko ëpp lim def ci àdduna bi ay junni junni la ci def yu bokkut ak salaatu yi ñu xam ni yu bokkut ak salaatu yi nga xam ni defar na ci yu bare bare bare gis naa ci yum tënkee bawal ci salaatu nabi bi nga xam ne bawal la ko tënkee tàmbalee ko allahuma yaa baax yi yaa waliyu yaa latif baa gi mooy baaw bawal waliyu gi mooy waaw gi laam gi mooy la laamuk bawal ba tey salaatul faatihi bi li ci sëñ Tuubaa def moom itam lu yéeme la muhammadinil bikri moo ñëw ci géej gi fekk sëñ tubaa boobu sëñ tubaa mi ngi bëgg a way mu waxi bu naafi di ko wayaat mu ne ko damaa bëgg sama salaatu gi nga laal ko sëñ bi yokk ci akramu indi ko ci mu waxi bu naafi waaye bi mu nekkee gànnaar ci atum bak sasin yonante bi feeñu ko jox ko wirdul maaxuus joxaale ko salaatu ala nabi moo tax wirdul maaxuus téeméeri salaatu faate mi ngi ci suba ak ngoon mooy salaatu gi sëñ tubaa defarul te ëpp lim laal lim ko laal gis naa ci juróom benn fukki xasiida ak lu topp yoo xam ne bu ci ne sëñ bi indi na ci salaatul faatiha dama koy compter te àggalaguma yii ci tarjumaan ju njëkk ji la koy indi yii ci mujj ga yii mu indi ko ci bu njëkk ba yii mu indi ko ci bu mujj bi léeg-léegi nag mu jël salaatul faate ba mu jeex mu yokkaat ci waxi boppam allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatih lima axuliqa walxaatimi lima sabaqa naatiri lxaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaq qadri miqdaari azim mu yokk ci salaatan taqdi biha xawaaiji kullaha wa xawaaiji almuslimina walmuslimaati l ahyaai minhum innaka mujibu daxawaati amin ya rabbal alamina kon Sëriñ Tuubaa mi ngi noonu salaatu xam bi patrimoine la su may jeexale nag mooy dafa am ñaar yu ma bëgg a nettali yoo xam ne nii lu ci ne salaatu xalal bi moo ko may nit ma xam ko xamin bu wér man ko waat sama loxo ci kaamil am na ko ma xam xamin bu wér daa saxaloon bis bu jot mu def salaatul faatihi vingt-deux mille fois ñaar fukki junni ak ñaar saxal ko ba benn bis mu feebar diggante tusbaar ak takkusaan yi di ko wooyal docteur noor mu jékki-jékki dëgg dënnu dënn gu metti metti di ñëw di ñëw di gën a jege si di gën a jege ba mu jàpp dënd gi daa lay daanu ci néeg bi mu nekk mu jékki-jékki rek am ku ne cëpp ci kanamam sol yëre yu weex tàll nee na musta gis rafetaayu weexaay boobu tiim ko nag nee na mu ne ci xelam kii ku mu war a doon nee na mu ne mu ne man la malakul mawti mu ne ah ci xelam nee na kon ne man damay faatu li ma jàng ci téere kuy waaj a faatu mu ne ko mooti day ñëw nee na mu xalaat loolu ci xelam rek mu ne ko ñëw ma ngir jël si sa ruu damaa ñëw di la siyaarti ngir bari gi ngay bari li ngay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon julli ci yonent bi mi ngi noonu ñu xam ne nit ñaa ngi ciy jariñu démb ñu ngi ciy jariñu tey te ginnaaw ëllëgit it dañ ci jariñu su may daanelee sama waajur wu góor moom ma wax ne ma damaa mos a wax si Ibrahima ne ko damaa bëgg gudd fan mënuma del julli ci yonte bi ma ne ko damaa bëgg barke mënuma del julli ci yonte bi ma ne ko damaa bëgg mucc mënuma del julli ci yonte bi ma ne ko damaa bëgg daraja mënuma del julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam man nag keroog ba ma ko nettalee dama ne ko ah lii daa mel ne yow taxu ko woon a jóg man mii nga ko doon man mii nga ko doon laajal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw waaw xam nga loolu mi ngi ci nuuru daari ne xam nga Nuuru Daari ne xasiid ak salaatu ala nabi la te ci mujjug sëñ bi la sëñ bi xasiid yi mu defar yëpp ginnaaw géej gi li ci ëpp xasiid yu gàtt lay doon waaye euh, Nuuru Daari moom spécial la ci ci ni mu guddee te julli ci yonent bi rek moo ko tax a jóg mat na 1369 wala 1370 vers waaye na nga julli julli koo xam day fees asamaan fees fees suuf loolu moom ma ah, kenn xamul lu mu toll waaw yartax te nag day yéeg dem ci xarat ak kursi waaw wayam loolu kursi day fees dala foofu waaw ba noppi nag ñuy digal mbégte nag ci xolob yonent bi sallallahu alayhi xool leen julli ko neex googu julli goo xam day fees asamaan julli goo xam day fees suuf ba noppi nag yéeg ba ci aras a kursi yu ba noppi nag dugal nag mbégte ci xolom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon xam naa maa ngi bëgg a guddal mën nañu yem foofu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.